bonsoir, tout dépend de l'heure que vous allez regarder l'émission. L'objectif de cette émission est d'annoncer et d'entamer merveilleusement bien la Coupe du Monde Qatar 2022. Je suis très bien entouré par les organisateurs de la fan jaune lors de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun. Et ça nous a porté bonheur. bëgg moment yi nga Coupe d'Afrique bi fan jaune Qatar comme ni Mbacké nekkee woon Cameroun loolu nag ñu ci ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les organisateurs ah de gauche à droite yéen a ngi leen di gis Ela Ndoye ah, Baylaat Ndiaye Pape Mass Ablaye Niang ñii nag ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy comité d' organisation fan jaune bi nga xam ne dañ koy amal saabu bu Sénégal day joué avant pendant et après match ci euh, mondial bi loolu nag dinañ ci waxtaan bu baax naka lañ koy waajalee naka la ñuy koy amalee ak ci yan anam lañ koy amalee bu ñuy nuyoo ci présenté wu kenn ku ci nekk di nga gën a ñëw ci li nga xam ne moom nga yor ci comité bi jàpp leen ne que Mbacké dina mel ni Qatar loolu la ñuy dund ci coupe du monde bi ci euh, fan yi nga xam ne dinañ ko ci amal xanaa moo ñëw ci sama waa ji Pape Mass ah nga nuyoo rek wax ñu tamit euh, li nga xam ne yoon ko ci comité bi jëm ci wàllu fan bi ngeen di amal. waaw asalaamaaleykum dañuy nuyu ñëpp di ziar waa Mbacké bépp waaw di jublu nag li nga xamante ne si moo nekk. Euh, ci fan zone bi nga xam ne moom la ñu am ci forod fii ci euh, coupe du monde bi nekk Qatar 2022 bi ñu nekk waaw man nag bokk ci euh, nekk vice président financier avenir de Mbacké ah di waajal nag li nga xam ne mooy fan zone bi lii nag man li ma ci def mooy damay jël lépp lépp lépp sant ko ki nga xam ne mooy président Badiane mm-hmm. balaa dara xew parce que lii yombul nga dagale nga jël lu mel ni fan zone nga xam ne dëkk Sénégal gépp ñoo ngi ko bëgg. Mhm. nga jël ko indi ko fii ci Mbàkke euh, jagleel ñu ko nag ba pare ci dara nag ni yéenay xool ñu leen neex ngeen defe ko ko man nag jàpp naa ne sax ku ndaw laa ci. Mhm. ndax sama naataangoo yi ma toogal fee jàpp naa ne. Mhm. ñoo ma si jiitu. ñoo jiitu si lépp mais nag bëri cëriñ ma delloo. kon damay sant rek di ko sant di doole sant ñi nga xam ne ñooy waa euh, avenir Mbàkke yëpp. tàmbalee yi mën naa ba ci moom président bi wàcc ba ci gën tuuti parce que ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am na tey loo liggéey loo xam ne tey yàlla def na tey ñu am yàlla def na tey fan zone. d'accord dinañ ci ñëw ci gën a yaatal gi balaa may sori mayo bii ma sol ah Laye Niang moo ma ko jox su ngeen bëggee mayo yu baax mayo de qualité dem leen ci Laye Niang bu ko defee mu jox leen mayo ak couleur bu mu munti doon rétro sax daf koy joxe xaaral ma nuyu ko rek pour neexal ko yéen da ngeen di xaar que joxu leen ma <laughs> Euh, waaw Seydina ñi ngi lay ziare ñu ngi lay ziar bu bër waaw ñu nuyu ñiy seetaan émission bi yëpp rajo. voilà merci beaucoup comme ni mu ko defee maa ngi ak euh, Baye Laat maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar ma bàyyi la rek nga nuyoo pour ñu dugg ci waxtaan bi. waaw Seydina merci beaucoup tout d'abord di nuyu la population de Mbacké gi yëpp donc dans sa globalité dans toutes ses entités donc di nuyu le monde sportif. di nuyu ñi nga xamanteni ñom ñoo nekk ci équipe bi nga xamanteni mom lañ bokk muy avenir de Mbacké di commencer par le président donc monsieur Badiane donc je pense que qui a eu l'initiative bi nga xamanteni mom mo ñu regrouper fi donc c'est-à-dire de refaire une fan zone donc doté ko la population de Mbaké donc qui est une très belle initiative boo xamanteni peut-être on a entamé la Coupe d'Afrique hmm. donc hmm. donc après avant Coupe du Monde on a vu que aussi les populations demandé à ce que nous am li nga zone au niveau de hmm. parce que fan zone dafa nek lo a Dakar Thiès Mbour tout deuk lañ donc je pense que c'était une première que moi am à et je pense que cela montre que. des autorités qui sont à Mbacké sont capables de reproduire li nga xamante ne moom mooy am ci biti. di ko jël di ko indi ci dëkk bi mu nekk une merveille une réussite. et loolu dañ ko ci sant di ko ci gërëm di ñaan tamit li nga xamante ni moom lañ antam mi muy fan zone mu am réussite bi nga xamante ni moom la bi jàll am. maanaam ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabil alamin Sénégal am ci ay ndam. am ci ay succès maanaam pourquoi pas remporter la parce que loolu la ñuy ñaan ñu ñëpp. merci. voilà merci beaucoup Baye Laat ci ni ko defee dafa am solo waaye nag lépp loo gis boo toggee ceeb te amul jën du neex léegi nag ceeb bi am na jën <laughs> jën bi ñëw na <laughs> mooy Fat Diagne <laughs> ceeb kese moo fi nekkoon moo tax affaire yi sedd Ela maa ngi lay ziar yow dañu dem ci réew. naa maa ngi lay fay bu baax di nuyu waa Mbacke gépp képp kuy seetaan émission bi ñu ngi lay nuyu di rafetlu initiative bi président bi jël. pour may waa Mbacke gépp fan zone ak Touba département bi ñëpp nag pour ñu nekk en communion loolu lu ñuy rafetlu la def nañ ko ci kaan moom réussite bu baax euh, dëkk bi di ko laajaat moom it mu pare pour joxewaat ko ci dëkk bi ñu ci woo waa Mbacke gépp nag amul kenn koo xamante ni euh, bàyyi nañ la ci woote gi di wax ni équipe bi Mbacke moo ko moom département bi ñoo bokk équipe bi na ci ñëpp dugal seen loxo. lii ñuy def nag ñu nit danañ ci xool tur yoo xamante ne buñ ko manee pour mën a fexe xool nu ñu copter ay moyens pour mu dem ci équipe bi danañ ko ci jéemaale incha allah xëy na ñu gënee doxal ci waxtaan bi danañ koy gën a yaatal ak gars allah. d' accord d' accord xam naa first track rek lañ koy def euh, di wax ne tamit Birame Faye euh, ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar yow tamit vraiment lépp luy doxal dëkk bi yaa ngi ci bu baax a baax tey xam naa ci fan zone bi dinañ la ci gis bu baax a baax BFTV Fat Diagne. ma gis dal dëkk bi lépp lu ndaw ñi di organiser da nga ciy nekk rawatina sport waa Mbacke moom ana yeneen jigéen ñi lu tax man toujours yow rek laay gis da nga leen informé wul wala ñoom yëf yi da leen nu demee noonu. salaamaaleykum maa di nuyu yéen ñi toog ci plateau bi di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan di jéggalu nag ci tardement bi xam nga rek maa ne woon ci ay yenn activités yu ndaw mais maa koy jéggalu bu wér ndax suñu wootee rek di teew heure waaw. Euh, di nuyu waa Mbacke gépp nag di nuyu waa Mbacke di nuyu ak lu sport bi ñi nga xam ne ñoo ngank footballu Mbacke ñu xool ñi yor footballu Mbacke di leen nuyu di leen tatagal ku ci nekk sa tur ak sa sant waaw li nga wax nag sëy naa leen moom xam naa ni naa ci tontu si kanam <laughs> d'accord dañuy dañuy gaawal dañu koy gën a gaawal ma ñëwaat ci yow euh, président Badiane ñu gis ni que euh, fan zone yombul mais dañu gis saa bu nga ko euh, askan bi soxlaa def ci taxaw def ko te gis nañ mooy yu bëree bëri moom moom lay laaj loolu nan nga si mën a ñëwaat ci wàllu côté boobu la waaw loolu li ma ci wax mooy xëy na nit ki bu ko dara ñoree wala dëkk ñor ko wurta xaar sax ñu koy laaj te moom bu njëkk bi xëy na laajoon nañ ko mais bii nii laajuñ ko avant ñu koy laaj moom woo nañu nañu ndax yéen koy préparé kon jàpp naa ne euh, bëgg na dëkk bi bëgg na loo xam ne mi ngi fësal mu Mbàkke moo tax mu jël moyens yu mel ne def ko ci et puis mën a déplacer écran bi indi ko pare nag am ci yenn yeneen yoo xam dafa ne ci biir xam naa ne gaa yi dañ ko dañ ko dañ ko seetal bëri na bëri na loo xam ne euh, gars yi ñu ngi koy programmé yoo xam ne ay surprise lay doon yoo xam ne moo xam naa ne ku mel ne baylaat wala Euh, Ela wala Ablaye Niang wala Fatou Diagne ma nekk si leer lu bëri bëri. mais xam naa ni vraiment euh, naa naa ci ñëw daal ci kanam daal xam naa uh-huh. naa ci ñëw mais mais nag il faut nga ñëw ci parce que da nga ma junj rek xaaral ma ñëw ci bayalaat bala may euh, kiyaat comme ni ma ko waxee léegi loo xam ne la dëkk bi bari na ñoo xam ne war nañ ci mën a participer bala passé dafa mel ne xawoon ngeen ci wet. Badiane rek moom moo ci nekkoon mais après gisaatuñ ko ci ndax waa dëkk bi. taxawaay bi ci bajaan am am na autorité yoo xam ne am nañ ko ci wala waa dëkk bi de d'une manière générale. waaw Seydina loolu nekk na question boo xamante ni peut-être dañ ci sawar a tontu. parce que daaw def nañ ko on a eu l'expérience. maanaam ren ñu koy entamé. donc je pense que ni biñ def daaw autorité yi wax dëgg fa yàlla ñu sollicité ñu bëri ñëw nañ. même avec leurs maigres ñëw nañ. mais l'essentiel qu'on a ligne de donc ça provenait du président Badian et de son équipe des gens qui travaillent et qui gravitent autour de l'avenir d'Ambaké. et il faut savoir comprendre que nous avons donc initiative de qui cadre l'avenir de parce que l'avenir de c'est l'équipe fagnon de la ville quand on parle de l'équipe fagnon c'est l'équipe qui porte étendard d'Ambaké. xamante porte étendardu Mbacké tey boo génnoon dem nga dem de donc je pense que c'est un monument à xamante protéger préserver en deuxième division et pourquoi pas en première division. et pour cela l'année passée nous avons ay moyens des moyens colossaux. et je pense que peut-être la réussite n'était pas au rendez-vous et je pense que aussi les moyens yi nga xamante ça s'est reflété au niveau dans le volet culturel bi nga avons exercé exercer actuellement. Mm-hmm. muy ci fan zone bi et à travers d'autres activités sociales que nous avons da koy au jour le jour donc au nom de l'avenir de au nom de présent de l'avenir qui est Mamadou Badian et je pense que ce qui limite muy def de reflété wul l'ambition dut ambition bi nga xamante ni am pas ko ci dëkk bi. Mm-hmm. donc boo xoolee les dirigeants yi nga xamante ni ñoom la accom les donc bo xolé li muy li muy daj ci ci équipe bi limi muy daj ci kii bi nga xamné ñi ce sont des personnes engagées. Mhm. et ce sont des modèles yo xamanteni pour tout un sportif bo xamanteni bëgg na sport bëgg na avenir de Mbacké donc bo xolé ñoñu da ngay xamné ñi ñom ñoom ñoo nekk ci yoon bi nga xamanteni tay ñom ñoom ñoo nekk ci pour sauver l'équipe. je pense que ça, c'est important et c'est un message que je lance à toute la population de Baké à travers cette émission. Nous allons soutenir l'avenir de nous allons soutenir son président Mamoudou Badian et toutes les personnes qui ont été ses collaborateurs. Parce que l'avenir de Baké, gagner, gagné, Baké, c'est gagné. d' accord d' accord euh, loolu c' est important euh, bu ñu waxee nag euh, El Hadj mun nañ xalaat organisation ñu gis da nga ci sonn lool te loo xam la ci côté organisation bi ndax mën nañu xaar mu nekk loo xam ne dafay réussir pour cent ndax mbooloo moom moo koy teewee te gis nañ ci final coupe d' bi xawoon na débordé. waaw Seydina organisation moom dafa xaaw métti. surtout ay nit yoo xamante ni euh, ñu fu ñu yaroo bokkuñu environnement bi nga xamante ni ci lañ dëkk ñoom ñëpp day xaaw métti toujours mais nag suñ kenn laay kattan danañ ko def ba nga xamante ni lépp dana tege ci yoon. loolu moom danañ ko jéem ñi ngi préparé nañ defoon nañ ko daaw am na tout dépendement waaye bi yoon danañ fexe ba heure yi ñu daloon daaw duñ dalaat rek incha allah te yaakaar naa ni président bi def na mooy yi war a def pour ñu mën am organisation bu baax beneen bi des dafa am bàyyi la loo xam ne jox na ko équipe bi équipe bu Mbacké la. mooy avenir mooy avenir de Mbacké. Mhm. kon autorité yëpp ñoo ci war a def seen loxo muy tàmbalee ko ci monsieur le maire. Mhm. ñeneen ñi ci des ñëpp ñëw ci képp koo xamante élu logoo ga da ngaa war a ñëw jàpp ci yëf yi mhm. moo xam foo mënti nekk ngay doomu dëkk bi département de Mbacké nga dëkk fii da ngaa war a ñëw jàpp ci équipe bi. indi sa tamit pour nit ñi jàpp si yéen a ngi def li ngeen war def xool li mu laaj pour ngeen waxtaan seen ngeen ñu jàpp est loolu tamit yéen. est-ce bi ñu ngi waaw waaw dirigeant yi ñu ngi def lu ñu war a def dirigeant yi ñu ngi war a def ñu ngi def lu ñu war a def wax na ko léegi ku ci mel ni Djily Diagne ku ci sonn la. Grand Socé Ndiaye ku ci sonn la Modou Gueye ay Maurice ñu ngi def li ñu war a def. ñun ñi nga xamante ñoo fare ci wàllu supporters yi ñu ngi def lu ñu war a def mais dafa am liggéey dafa am fu mu toll foog dëkk bi bootu ci ginnaaw euh, équipe bi. équipe yombul ñun ñii ñëpp ay nitu kenn ku nekk yor nga équipe mais xam ngeen lu ci équipe. équipe bu amul mbooloo buy pë poids buy peser ci ginnaawam la muy def day des kon dëkk bi soxla nañ leen ci lii avenir def président Badiane lii mu woote nii pour communion dafa bëgg dëkk bi tamit xam ni ñoom war nañoo dugal seen loxo ci équipe bi ñu dëkkee fii Mbacké ñëpp nag ak ñu nekk bitim réew ñëpp war nañ ci dugal seen loxo loolu moo tax mu gën a may li pour ñu daje nekk ensemble ñu xam ñun ñëpp benn lañ ambition yi benn la war a doon dañoo war a daje ci benn mbir muy équipe fañoo bi ñu bokk muy avenir a Mbacké loolu mooy dëgg. d'accord euh, xam naa dinañ ci gën a yaatal dinañ seq ay waxtaan yu gën a bëri ci euh, biir coupe du monde beeg fan jaune tamit dinañ ci gën waxtaan pour avenir parce que équipe bu war a yéeg la mais warul nekk équipe buy wàcc te si yéegam rek Mbacké mën na sa jëriñu ci lu bëree bëri euh, laay ñoo fan jaune am ci dëkk. ñu gis ni que coupe du monde ñëpp koy dund rawatina Sénégal buy joué coupe du monde fan zone lan la mun def ci dëkk dëgg-dëgg. zone lu mën a def ci dëkk bi. Euh, waa euh, Seydina maa ngi nuyuwaat ñëpp di euh, ziar ñëpp surtout maa ñuy suivre seen jet voilà balaa may commencé damay commencé ci kaan biñ génn mhm. da ngay xool ambiance bi amoon si dëkk bi loolu musul am Mbàkke te loolu bu amee Mbàkke war nañoo sant ki defoon loolu muy président Badiane parce que Mbàkke fi la ñuy juddoo ñun ba tool nii c'était une première mu am waaw comme kon loolu su su ñëwaatee ni dàbbaliwaat ko ah dañuy wax merci waaw tamit nit bu toogee fële na le di xool fu sori bëgg koo yób bëgg yóbbu dëkkam tamit ñun ñi toog ci suuf tamit war nañ ko mën a accompagner mais pas di gor tànk yi ak di yàq politique de communication bañ fay def ak yooyu parce que loolu daaw am na fi ñuy teg fan zone am ñu tourné fële naan fan am na fii ak am na fee ak yooyu noonu di yàq waaw loolu du rafet waaw fan tamit li mën a def si dëkk bi mooy dana tax population bi danañ dund une scène de communion ku si nekk dana gën a jegante da ngay gis ñaar ñu xuloo sax mën nañ faa jubo mm-hmm. ndax tase bañ fay tase waaw loolu gis naa ne liggéey na ko fi te yàlla moo ko mën a fay loolu quoi mm-hmm. waaw. d'accord d'accord d'accord euh, voilà comme euh, noonu rek la ñuy wéyalee Fat Diagne euh, dama koy gis ah jigéen ñi football daf leen intéressé léegi mais fii à Mbacké dafa mel ne xale lu jigéen ñi dañuy bàyyi ba yëf yi sotti rek ñu ñëw toog seetaan dan moo tax lu ñu def comme ni ko góor ñi defee ñëw bokk ci organisation jël ay poste nekk di diriger ñoom tamit comme ni ñuy gisee jigéen ñi mais toujours li ma wax rek yow la ñuy gis ngay teew ci affaire yi wala benn fat jaan nday faama jeex na ndax tamit jotul pour nga jëm ci sensibiliser waxtaan ci xale yu jigéen ñi pour ñu ñëw ndax jigéen lu mu dugg rek defe naa ne que pour mu réussir ci la gën a yombee merci ci question bi Euh, li nga wax nag moom euh, man dinaa ci sawar di tontu parce que li nga li ngay li ngay faral di wax rek tout le temps tout le temps benn fàjjaañ ngay gis muy dem si sport bi. du question ne benn fàjjaañ rek moom moo moom moo moom moo moom moo war a jiitu mais fàjjaañ boobu peut-être xëy na bëgg-bëgg bi mu am ci sport wala ambition bi mu am ci sport xëy na ñeneen ñi tamit duñ ko am. te di nga di nga di nga ootee di nga dajale mais da ngay da ngay dem ba benn instant da ngay xam ne carrément yow ni ni nga koy yëgee ak ni nga koy centré ak ni nga koy dundee par rapport ñoom ak ni nga koy centré ni nga koy dundee parce que li may wax ñun tëjaluñ kenn suñu ay porte benn mu ci avenir de Mbacké man tëjaluma ci kenn ay porte bañ naa bu marché amee damay wax diw ak diw ak diw ñëw leen ñu toog regroupement ñëw leen dem stade doyal équipe loolu juste que pour pour ñu gën a jege sport bi pour mën ci dem ba am amour bi di ko dund. parce que boo xoolee léegi Sénégal xale jigéen ñi nga commencé di ñemee sport bi football bi tey du benn du ñaar tey foo demee euh, ci championnat Sénégal bi yëpp club boo gis am na ñaari jigéen. soit que ñooy nekk si médico bi soit que ñoom ñooy nekk di di nekk seen euh, secrétaire général. te loolu lépp Mbàkke war na ko war a mën a am mais nekkul ne Fadj Diagne à chaque fois que moom mooy bëgg. di toog ci kanam man damay ñaax xale jigéen ñi ñu ñëw jege équipe bi créé naa benn groupe WhatsApp tuddee ko OGM avenir de Mbacké dugal naa ci ay quelques nit ne leen sax bu ngeen gisee seen ay xarit comme man ni ma koy defee wala seen ay ñoo xamante seen i copine lañ yéen a ngi ànd jéem leen a xëcc ñu gën a jege équipe bi parce que équipe bi soxla na ko équipe dafa soxla ko ko jàppale ci góor ci jigéen. ci dëkk dëkk bi ñoo ñoom ñoo war a jóg jàppale équipe bi te xam ne amuñ lu avenir de Mbacké avenir de Mbacké bala nga xam dayoom dëgg dëgg dëgg nga génn dem seetaani championnat Sénégal pro Ligue 1 Ligue 2 foo ne avenir de Mbacké la bokk dañuy sigg di la xool kon dayo boobu mu am ñun war nañ fa war a mën a delloowaat équipe bi parce que am na ñu koy bàyyi xel bu ñu demee ba Ligue un Ligue 2 ngay tam toog ci stade di seetaan ñu boo foo bokk ñu la avenir de Mbacké ñu lay xool. kon loolu war nañu jéem a jàpp ci équipe bi pour équipe bi nekk dellu ci fi mu nekkoon. équipe nag boo koy jàppale doone damay bàyyi ba mu neex ma jàppale ko équipe soo koy jàppale danga koy jàppale ci moment yi difficile yi buy neex fekk la fa mais bu fekkee ne dafay naqari rek nga bàyyi suy neex du la fa fekk te ñun dañoo fier ci avenir de Mbacké benn si man man dama fier ci avenir soit que mu nekk ci ay difficulté soit que mu nekk ci ci ci ci ci voie bu baax bi dama ne dama fier may wona xalé jigen yeb jigéen yëpp ñun tëjaluñ kenn avenir da mbacké te suma sañon tamit da fay yaatu su avenir bu gesso gis ay supporter bu gesso gis ay jeune fille yo xam ñi ngi top ci ginnaawam waaw yaatal na ñepp mais yow ya ma gëna xam dëkk bi ñek ñu koy du bari te li ñi ragal it na. leen dal xamna ko yow nga ñew ci match wala nga ñew ci fan zone rek day tax benen bay ñëwaat. cinquante biram ak cinquante elandoo yi sa war a ñëw seetaan si man moom loolu leer na ma xam nga moo tax da ngeen a baax cib dëkk li ngeen a baax ci cib organisation loolu daf cee am solo voilà léegi nag ma ñëw ci euh, Pape Mass euh, xam naa tamit mooy nekk dernier tour bi euh, am na loo ma junj léegi jotoo ci yegg si mais lan lañ mën a xaar ci surprise ci jëm ci wàllu fan zone bi. Ah waaw mais xam nga loolu su ma ko waxee daanaka. Hmm. solo suñu bëri mais xam naa ni. Hmm.

def nañu ko nak and ko ak waa fan jeune bi and ko président bi ak waa avenir Mbacké am coup ñi ñaan yalla nak tay la amoon amaat parce que nag euh, Sénégal mo war parce que bu bu manam bu tago Sénégal moo tax di ñaan nak équipe bi ma nek muy avenir parce que mu nek équipe bo xamné ne euh, ñi ki nek dañ ci sonu mhm. c'est dañ ci trop membre yi ci CD bi ba ci supporters yi dafa am coono bu ci am rawat na nag suma benn grand bu ñoon soose wallahi da ci sonn trop mhm. xaaru ci dara xaaru ki dara te toujours suñu xëyee bu ñu xëyee équipe bi mhm. dama si ñëw dama koy baal quoi mhm. ñëw pour ma yaata gi tuuti da gis ne bu ñu bu xëyee bala bu yeewoo bala mooy liggéey ndax may woo laaj man ndax xale yi yeewu soose ndax xale yeewu nañ frère Baylaat Ndiaye. frère Baylaat la mais moom bokkut moom bokkut ak moom quoi moom. bokkut ak moom ah. mais vraiment mu nekk nit koo xam ne sooy wax ci moom sax mën na yàgg. Hmm. sama grand Modus. Mor waaw Modou lay jili hmm. mais hmm. mën naa nag am na yenn membre na ci biir. mais ñii ma la nii. waa Mbacke war na leen delloo njukkal guddi ñu toll nii nii nii waxuma nag démb waaye ren. année yi passé war na leen delloo njukkal. di wax na comme ni ko Ela waxee léegi dañoo war a jël seen i matukaay ñëw jàpp ci équipe bi. Mhm. parce que équipe nekkatul léegi loo xam ne benn loxo war na ko mën a yor. Mhm. ku ci war a mën a jàpp na ñëw jàpp ci ci liggéey bi parce que yaatu na. Mhm. parce que gis nga Ela comité bii nii mooy comité supporter bi. nekk na lu ñu xeeb ci Mbàkke te boo demee ci yéen équipe yi tey bu Ela Ndoye ñëwoon dagg entraînement bi fii Lukaas te benen équipe bo dem bu ko neex présent supporter ah, mën nañu arrêté arrêté arrêté sa entraînement wax ñu bëgg wax hmm. ko ñoy force bi gëna am doole d'accord gëna présent mais nak di ñaan dal ñepp ñew rendez-vous dimanche soir wala dimanche soir non dimanche soir moom dina am li am fi insha allah gaay naa dañ ko programme ñom ñu ci wara programme ak ñom wa comité bi la ko wax fi nga dégg d'accord voilà di ñaan nak. waaw kilifa gi hmm. mu am jamm limuy def ci Mbàkke yalla fu mu gën ko mën ak ñi mu andal ak wa comité bi D'accord. Merci beaucoup Pamas, yang ci def lu am solo. Ñu ngi ci joko yang ci liggéey lu am solo comme ñep Lay, merci beaucoup pour ci téway bi. wa merci beaucoup yawit c'est euh, na alun ci temps be ñu offert ñu mëna exprimer wu wa di lancer ben message rek pour sama euh, mbokk mbake bawale yi ne fan zone buñ ko tegee pour pour ñom la quoi ñu bañ ko yaq mm-hmm. surtout lolu daaw moins cinq ñu yàq écran jàmbur bi te ça coûte de fortune quoi mm-hmm. waaw loolu daal la bëggoon ñu attiré wu ci tuuti su ko defee ñu bàyyi ci xel daal. d'accord merci beaucoup merci beaucoup Ablaye Niang ndekete moom euh, suñ ko tegul caméra yeeg micro yi nekk di ngand ngandiloo yooyu noonu mais bu caméra yeeg yaa day yor Fatou Diagne merci kontaan nañ ci teewaay. naa la bi di ko encourager xam nga liggéey sa dëkk moom kenn du ci sant kenn mais nag dañ koy encourager pour mu gën a mën a euh, yokk li muy def parce que ni mu ni mu bëggalee woon nit ñi ci coupe d'Afrique bi. yàlla nañu ko bégalee waat ci coupe du monde bi coupe bi ni mu ñëwee woon it yàlla na ko ñëwaat ñi ngi ñaanal équipe nationale di ñaanal monde esportif ñëpp ñu jàpp si ñaanal équipe nationale pour ni mu demee woon ci coupe d'Afrique bi mu def mu demee waat ko di sant président bu baax a baax a baax a baax a baax ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que tamit bu bu du woon ak moom duñ dundu fan jona ah, à dañ koy gis si écran yi di ko gis si dakaar ak yeneen kii mais sant yàlla biñ ko bi ñu ko dundloowee liñ doon liñ di li ñu seetaan si télé yi à Dakar li ñuy seetaan après journal ñu ñu toog di ko dund kon loolu dañ ko ci sant di ko ci gërëm ak sama grand frère yi nga xamante ne si gin daaw ñoo ci nekkoon organiser ko def ko ba mu baax kon niñ ko defee woon daaw yàlla nañ ci amaan ren lu kawe seen njort merci beaucoup seen daal gërëm bëgg naa bëgg naa un mot euh, parce que pour wax leen maa ngi koy wax léegi ci commencement bi kii dëkkul Mbàkke liggéey moo ko fi indi day jàngale mais après da nga ñëwaat nga tàggoo dégg nga Birame mën nga ñëw liggéey moom moo ko fi indi mais jeune la boo xam ne maanaam dëkk bi ñor na ko luy doxal dëkk bi ñor na ko te ndaw buy góor góorgóorlu bu ne dina ci teg loxo parce que man liggéey nañ ba léegi ñu ngi kon ne di liggéey te je vois que ni lépp lu ngeen di liggéey man dama leen koy wax dugal leen ko ci am na xam-xam ci yëf yi te jàmbaar la am nga expérience ci organisation événement yu ni mel fan jaune xam nga li mën def ci dëkk équipe avenir biit xam nga tey buñ ko doole li mën def ci dëkk ma bàyyi rek yow nga sànni ci un mot. waaw asalaamaaleykum euh, di leen nuyu yéen ñëpp d' abord ñi nga xam ne laa bokkal plateau bi. tàmbalee nuyu bi si Seydina Alioune. c' est vrai que je suis venu en retard. mais euh, damay magnifier d' abord li nga xam ne mooy fan zone. Euh, daaw ci Coupe d' Afrique bi. may toog kër ga seeraan match bi 15 premières minutes yi. ma ne am na manqué parce que dama tàmb ambiance de ma génn ñëw si gaar bi fii fekk fi équipe bu avenir bi ak jeune yëpp ñu dëkk fii ci Mbacké ñu toog di ko seetaan et que mu nekk loo xam ne vraiment daf ma marqué ren nag bi ma laay ñaa contacté ne ma que vraiment dañuy euh, defaat li nga xam ne mooy fan zone ma ne ah man day fépp fi nga xam ne nii jeunesse bu consciente mu ngi fa damay dem daaw bi ma ñëwee ma gis ne que carrément ci Coupe d'Afrique bi fii laa seetaanee quart de finale demi finale ak finale te nga tëj sa kër ñëw tok parce que vraiment amna lo xamné gis nga ko fa te it mu doon luñu jik parce que dañ ko organiser jël ci coupe d'Afrique fi la tok bi ñuy jubilé ba ñëpp jóge Touba ñëpp dajalo fi jubilé ba 23h30 Inshallah, allahu rabbi ren dama bëgg ñu ñëwaat ñu téwé ko. donc euh, damay profiter de l'occasion aussi di euh, remercier le président Badiane. parce que bari na ñi nga xamné ay acteurs la ñu yëngu ci sport. ñi fi né mais amuñu initiative donc su amé initiative bi lu may rafetlu la parce que li dafa bokk ci liy dundal sport avenir nak bëgg na képp kuy doomu mbacké wala képp ku dëkk région de Djourbel la wax rek nga ñëw teg ci parce que dama bëgg équipe bi dem première division parce que bu demee première division déjà liñ dan jël ay jeunes yu dëkk fi mbacké di dem dans les régions comme Louga wala Thiès wala Dakar di fa football dana tax bu boba centre de formation yi ne fii ci dëkk bi ak école de football bi képp ku ci génn rek day jaar ci équipe première division bi di avenir bu Mbacké mu doon loo xam ne bi dina si gis boppam waaye mu tamit dina doxal sport fii ci région de Djourbel. donc di leen remercier bu baax di leen féliciter si initiative bi te xam ne nag coupe du monde bi maa ngi fii ci début ba ci fin bi incha allah fii laa koy seetaanee ak famille bi di leen soutenir di woo tamit jeunes sportifs yi nekk fii ak képp ku bëgg sport mu ñëw jàpp si projet bii di fan zone fii ci Mbacke Bawol ak waa avenir mu doon loo xam ne réussite totale lay def jaa ngeen jëf. jaajëf merci merci beaucoup Birem kontaan nañ ci bu baax a baax vraiment am na solo comme ni ñu ko waxee Ela xanaa rek yow it euh, mot de la fin euh, pour ñu joxante dig daje euh, yow yaay annoncé affaire bi. waaw. Euh, dafa am baat bu kii sawaay wax dafa am baat bu sawaay wax nu mu tuddati Aliou boo reeloo waay <laughs> dafa am baat bu Pape Mass wax mu jëm ci li nga xamante ni lu ñuy dund la te lu ñu xam la muy wàllu supporter mais condition bi ñu war a supporter avenir dafay métti euh, qu'on la vérité dafay métti ndax avenir supporter ko fu mu toll du yomb ndax amuñu stade bu ñu recevoir euh, pour recevoir da ngay génn dem Diourbel dafa métti mais bu fekkoon dañuy yeewu fii waaxu dugg ci stade bi boobaa danañ gis lañ doon gis yoon ndam mën nañ ko ci sa njaareem ndax ñu ngi doon jéem mais da ngay jëlee fii ay nit ñu paas ba egsi bëgg a jëndaat bi ñooy loolu day métti ci ñoom te alors que équipe yi nga ñu doon gis comme yoon ndam gars yi dañ naan def ay moyens yoo xamante ni biir jàppale supporters yi amul billet ñu jutal leen billet mobiliser leen ba ñu mën a jote ci lañ gi ba pare dañoo am loo xamante ci koñ ba ne moo tax ma waa dëkk bi comme tey jii ñii tëgg doo leen doo leen fay dañuy génnee ci koñ bi ñëw xam nga loolu plus la avenir bu ñi nga xamante ni ñoo comme ay classe u layti gi ay Cheikh Fall Géwal ay Aliou Mbaye ñooñu bu ñu indi woon seen matériel ne dañuy tëggal avenir dafa yombal dafa yomb mais lii équipe bu dëkk bi la non non ma man Ela Ndoye est ce que dañ maa woo mais bokkul ne lii dëkk bi la demal nànk rek demal nànk demal defal nànk damay dañuy wax ma mm. nit ki lu mu bokk mm. ak luñ ko boole da ko war ràññele li équipe bu dëkk man xaaruma kenn di ma mm. dama bëgg football bëgg dëkk bi premier pas yi dama daan dem ba Fatick di fekk équipe ba équipe bi taxawal ko dama laaj poste jël poste bi jël ko nag ak ay engagement yi ferme te liñ jël xam nañ ko te am nañ yaakaar ne mën nañ cee indi ab plus commencé woon nañ ko mais da ngay dem ba saat xeex bëgg fa am seen biir te loolu du yomb jëlee fii ay ñaari kaar dem ba saat war a daggal ñëpp bee loolu après ay bor di la ci fekk alors ko yow lu baax nga ci bëgg nit ñi duñ xam loolu dafay dafay xaw a moo tax ñu arrêté ko di paasal suñu bopp dem ba mais bëgg nañ am stade suñu stade bopp ñu ci woo ministre Yankhoba Diattara xamal ko ni tamit lu ñu mayul mataar ba duñ ko ko may te loolu mooy dëgg ministre ministre des sports dafa war a xam rôle man ministère yii ma gis nii dama jàpp ne xamuñu ñoom lan lañ leen di doyee du question que football rek lañ leen fi indee dem di seetaani football handball baa ngi am fii Dakar ñu bàyyi ko fi dem fee di xuloo ci ay hôtel yooyu moo ñàkk fay day yoo xam ne nit dañ leen ne xaar ñi defaral ñooy stade loolu lañ xaar infrastructure yu baax ñu utal ñu mooy moyens équipe yi nekk fédération yi nekk ci ay kii conditions yi baax mën a organiser mais pas ñoom ñuy dem di jiit ay délégation wala xeet yi demee noonu amul benn équipe boo xamante ni ministre am moo jiite délégation bi loolu amul kon nag ñu koy fàttali suñu stade bi muy stade Mbacké bii moom dañ koo wax mu inauguré mbalaa li dal Matar Ba di ko dal ñëw fi ba génn inauguré woo Matar Ba inauguré wu la ma koy waxaat fii Ablaye Wade ki ko inauguré mooy président te mënoon naa inauguré mënoon naa am sens inauguré stade te tabaxul euh, maanaam euh, lim président moo ko joxe te suuf ba ko tabax. kon Matar ba inauguré wul nañu inauguré suñu stade bii te yàlla tax ñun ñu continuer la ñu may doon kee duñ ko duñ ko may moom. merci voilà merci euh, mun naa ne opportunité la boo xam ne jàll waala nga ci message bu am solo Bayrat merci beaucoup. waaw merci Seydina. dañ d'abord donné l'opportunité. tay mën a waxtaan ak population Mbacké li nga xamanteni mom moy fan zone bi merci tamit à toute l'équipe ñi nga xamanteni ñom ñoo nekk ci fan zone bi depuis daw et merci à tous les dirigeants yi nga xamanteni ni ci avenir de Mbacké et j'en profite pour lancer un appel à toutes les personnes yi nga xamanteni de ressources qui sont au niveau de la ville ñu accompagner li nga xamanteni moy élan bi Badiane def pour mën accompagner li nga xamanteni mom moy mooy sport Mbacké vie culturelle Mbacké parce que kii di sport Mbacke wax que ne Mbacke ñëpp ay sportif lañ Ela Ela wax na ko léegi dëkk bu bëgg football lañ. donc je pense que euh, coupe du monde bi c'est un moment pour ñun mu nekk moment de communion. moment de convivialité et moment boo xamante ni tamit de solidarité de partage et nous nous comptons à notre niveau mettre en place li nga xamante ne moom mooy fanton zone bi def ko benn espace bu familial. boo xamante ni nit ñi ku fi ñëw tamit da nga am sécurité ba nga xamante ni moom nga fi moom mën na la permettre nga mën a seetaan sa match ba ñibbi te doo am benn gàllankoor. nous comptons mettre en place aussi beaucoup de diversité par rapport à ce que ni la fois précédente parce que l'épologisme, loo gis moom une ci expérience et l'expérience qu'on a tirée de cette fan zone là c'est qu'on peut l'améliorer et on peut faire quelque chose pour maintenir ni tey waa dans dañ je pense que la euh, surprise c'est que mm-hmm. dàq ci lépp nous gis kon ñu gars surprise de leen woo rek ne

ak Moustapha Dieng ñankoras waaw ñu jaal ndax ñom tamit dañu ak seen ñaari waajur yi bu yagul dara ci diggante ci ginnaw quoi xam na diggante bi tamit aussi am na ci lo xam mo xam buñu jël soté dal mhm. dina gëna neex dal inshallah d'accord merci beaucoup ah dañ doon annoncé coupe du monde bi ak nim ko wara dundé fi ci mbacké andon ak comité bi nga xam ñom ñuy organisation lepp lu jëm ci fan jaune bi moy ñi nga xam ñom ñoo nekk ci avenir bu mbacké ànd ak président Badiane bi nga xam lepp lu mu laaj rek da koy def pour affaire yi dox ñëpp nañ ñëw japp si ak ku munti doon góor wala jigéen ñëpp ñëw leen ngeen jàpp si ànd kook Senejet merci beaucoup gars yi on se donne rendez-vous lundi jërë ngeen jëf